boo xoolee parce que dañoo produit arrêté bàyyiwul dara boo jëlee pois bi dafa am saretu fas am saretu mbaam am wëtiir ñu woy wëtiir dañ ne boo jëlee saretu fas bi chargement bi warul weesu huit cent kilos doo lañ la wax warul weesu huit cent kilos te tamit ni ngay tegee bagage bi aussi benn bagage warul déporté boo koy takk tamit war nga ko takk ba nga xam ne muy bâche ba ak lara warul tekkee ko foofu jug dem génne ji keneen wala dem dali ci oto yàqal nit donc warul déborder benn côté loolu lañ wax te tamit am na charrette yoo xam ne charrette mbalit la dañ ne bu dee charrette mbalit conteneur nga war a def loo xam ne day tëju nga xam ne mbalit du doo daw mbalit di tuuru ci suuf te yow mi borom charrette waroo toog si kaw mbalit mi da nga war a teg baar boo xam ne yow ca ngay toog loolu lépp ñu ngi xool tamit wérgu yaramu nit ki bañ nga dem toog si mbalit mi jëlee ci feebar wala jëlee ci dara lu loolu Benen beneen bi mooy tamit boo jëlee charrette mbaam.

boo ñëwee ci charrette bi voiture bi boog voiture bi nee nañ euh, ki koy dawal ak ñaari nit la war a yeb warul yeb lu ëpp loolu mooy boo boolee léppoo lépp ñetti nit la war a yeb des fois nga gis euh, ki dawal sax du mën a toog bu baax day la day <laughs> day wengalu fële pour mën a yeb lu bëri ci voiture bi loolu dañ koy tere li arrêté bi permettre mooy que benn euh, ki koy dawal ak ñaari nit lay yeb mais bu ëppee loolu loolu yoon da koy tere. arrêté bo xolé dinaa la ñetti jëwriñ ñoko ko légui biñ ko jëlé en 2016 mu nekkoon temps Aminata ngi ñay la ñëk def moy def ay tournée de vulgarisation de l'arrêté temps yoy mom def na les 12 régions du Sénégal les 14 régions du Sénégal en tout cas dal fi nga xamné fa ëpp na fa doole yëpp dem na fa pour lépp pour vulgariser arrêté bi ñun suñu wàll parce que bon, les parce que mairie euh, autorisation de circulation bi police ñu parce que may contrôle bi transport ñu ngi nous ont carte cochée ak tamit ñom ñoy sétu bi aussi tamit ak wa élevage tamit ñu ngi ak mala bi ak tamit aptitude mala bi ak tamit carnet bu ñu carnet signalétique kat signalisation bi donc produit le ko seq dafa bëri donc loolu moo tax un peu application bi day xaw a diis comme ñi ko seq dafa bëri donc euh, moo tax ñun depuis le début dañoo tàmbalee pour vulgarisation on a toujours vulgarisé boo xoolee jëm nañ ko def ci genre kii nii hmm? am benn ONG bi tudd Brook aussi mu jàppale ñu ci lu bëri ci vulgarisation bi boo xoolee nañ def ci genre pour ko distribuer nañ ko def tamit ci genre bële pour def ko image waaw boo xoolee bii dañ ko def image parce que d'habitude sunu cible bi ñu bëri jànguñu mu ñu jànguñu bokk euh, kii nasaraan donc dañ ko traduire en wolof def koy image ba nga xam ku gis rek da nga même boo fekkee ne sa jàngoo da nga xam ne ah fii kat lii la ñuy wax ak lii la ñuy tere ak lii bëgg donc nous sommes dans cette lancée c'est-à-dire vulgariser le maximum parce que suñu suñu point de vue mooy nit ki euh, mën nga ko dóor mën nga ko tëj mais bu dee li muy def moom xamul lan la da ngay dóor ba dee wala nga tëj ba sonn bu génn tamit day defaat la même chose donc ñun lu ñu gën a mooy la vulgarisation moo tax depuis 2016 chaque année on effectue des missions sur le terrain des fois ñu def ay ay ay ay ay ay ay ay kii ay ay informer police wala ki wacc ben ki def genre opération coup de poing xam nga pour au moins sécuriser parce charrette aussi dafa wuteeg auto différence moy sanction bi parce que tay jii ne booy sanctionné charrette dañ na la nga alaman ko moy contravention 5000 francs mais bu dee borom auto bi tay ji yor permis boko jëlé permis bindul ko dina ñëw fay pour jël ci permis

parce que boo demee LGI Mbao mënoon la ubbil ben nek bo xamné ay arrangement pour te dire les gens on essaie toujours mais ba légui comme li wax rek ben texte n'est pas parfait on essaie d'améliorer benen bo jëlé ñu né foog nga fourrière fas bi xam nañ Dakar fourier amatu fi té tamit bo fourieré li ci indi dafa bëri parce que ya face ba ya ko wara dundal warul dé sa loxo parce que bu dé borom bu ko neexee ñëw topp la tamit si yoon donc pour te dire sanction yi aussi tamit mu ngi fi mais liñ gëna a moy la sensibilisation te je pense que léegi les gens sont conscientisés parce que boo gisee déjà rek euh, maltraitance bi ni ci nit ñi euh, ni mu soxalé nit ñi léegi ah ak tamit nit ñi gëdd buñ ko jox nga xamné légui les gens sont de plus en plus sensibles ci nekkinu nu yi té je pense que lool mo mën indi solution parce que lool bu bu ko gars yi sens bu nit ñi sensibiliser ci loolu tamit coché yi dinañ xamné ne ñi li yor kat déjà ñom liñ yor lu bari mooy dundal seen i kër.

ñuy waxtaan ak tamit association des cochers Pa Gora Mbeng bu ñu ko xam ci kii bi mu ngi dëkk Thiaroye moom mooy le président de l'association des cochers du Sénégal pour dire bàyyiwuñ kenn ñëpp ñu seq acteurs yëpp ñu ngi jéem a waxtaan ak ñoom pour sensibiliser leen pour au moins ñu jéem a respecter loolu. comme avant tout ay vétérinaire lañ te ku ne vétérinaire mooy bëgg mala moo tax nga dem kii donc métit xol ngay gën a yëg déjà ak tamit xam ne ñii nii xamuñu li ñu yor mooy lan parce que man je ne peux pas comprendre nit dara di la dundal nga koy maltraiter pour man inconscience mënul euh, ëpp lool. loo xam ne tey jii nii bu xëyoon dee yow boo deful naa di nga toog ay weer sa kër cin du fa tàkk teewul yow da nga koy maltraiter di ko teg loo xam ne attanu ko déjà loolu rek pour man ku xelam xaw a kii tuuti déjà du nangu lool beneen bi en tant que professionnel de santé aussi. Nous ñu ngi parce que am na benn code bu ñuy bind ni mu code sanitaire boo xam ne bu paree dinañ ci jéem a dugal bon ñu finalisation bi d'ailleurs dinañ ci jéem a dugal boo ak yelefu mala rek lay wax. parce que au-delà même di fas yi boo demee ci nga dem si bëy nga dem si ginaar yi boo xoolee li leen kër yi ci ay wala ba ci xaj yi sax nga gis yenn xaj yi leen di élever ba ñu ils devient très agressif ba nga xam ne nañ sa euh, ñaata dégg ñaata yoon nga dégg xaj attaqué na jànq si kër wala genre yooyu yëpp dañ cee bëgg indi ay leeral yoo xam ne euh, xam ne yoon dina si indi leer kii yulle ba mu leer naññ quoi parce que loolu lépp euh, yelleefu àqu mala la yoo xam ne donc ñun vétérinaire déjà ñu ngi koy méttilu bu baax a baax te tamit comme on dit le travail continue booba léegi gis nga jéego yu bëri ñu ngi ko siy def parce que déjà loi bi déjà boo xool andi na ëmb na lépp te tamit ñuy woo suñu yeneen acteurs yi ñu bokkal euh, arrêté bi ñoom tamit ñu gën see góorgóorlu waaw ku nekk daal la ci sa euh, kii def parce que da ngay gis des fois charrette bi bu bu yebee ba mu fees yeb na mu warul yeb dina romb ñu bëri ñoo xam ne tey ji peut-être waroon nañ ko mën a arrêté xam nga mais yooyu peut-être bu doxoon lu bëri dina wàññeeku tamit donc ñu ngi ci interpeller tout le monde waaw di di ñaan daal vraiment lépp luy àq ak yelleefu mala ñu gën ko dëggal Euh, ñu gën ko dëgëral ci réew mi parce que sama benn directeur moo doon wax ne réew réew mu rongo ñu fas toq réew moom du am jàmm loolu la doon wax quoi moom donc euh, te fas mu nekk loo xam ne dafa noble dafa mësa noble donc euh, ci histoire ak lépp dafa noble donc je pense que ñi ko xamul rek ñoo koy maltraité waaw di jaajëfal ñëpp di leen jaajëfal aussi ci ñëw bi ngeen ñëw fii tey bëgg leeral nit ñi si teg dèjà ñun lii rek opportunité bu mag la pour euh, lu ñuy def ni en ce moment muy la sensibilisation la vulgarisation de l'arrêté et di ñaan tamit ñëpp approprié wu ko surtout borom fas yi parce que ñoom bu ñu dundee tey pratique ñu bëri fas yee leen dundal donc nañ wàcc ak ñoom jàppale leen ay mala yoo xam ne dañooy lekk dañuy naan dañu am bakkan comme ñoom.